sànni ci lu gàtt rek ci combat bi parce que combat bi moom man xaw na maa jaaxal fi mu nekk nii ndax coow wax ne auzu billaahi mina sheytaani rajiim ginnaaw ma sant yàlla julli ci yonent bi di sant sama ñaari waajur di ñaanal sëñ Abdou Karim Mbacke mu yàgg fi te wér di ko ñaanal Baye Jili borom léegi léegi di ko ñaanal seen jigéen seen ñooñu ñoo may ñaanal fu ma nekk ñoom lay tëjee ñoom lay ubbee waaw di ñaanal sama sëriñ nag waa kër Cheikh Babacar Ndiaye cergaat ñëpp suñu borom bàyyi leen fi ba ci kanam ay ndaw lañ nañ ñu ñaanal am na lu ñuy bëgg ay gone lañ maa ngi nuy staff ñu ngi production bi yëpp ku mel ne ñoom Serigne Faye mhm. grand Paul Maurice ñoom Kaana ñoom Saliou Ba Abdoulaye Ndiaye mhm. ñi jàppale ñoom ci yëpp ay ñoom Omar Saliou xama ñoom muur anta dañuy jàpp ci cent pour cent bi ñoom ñëpp dañuy jàppale ñu ngi production mhm. te ragal fiir day xañ a wërsëg maa leen ñaan suñu borom sàmm leen di wax ne ñu ngi nuyu salle bi yëpp daal di wax ne combat bi daal. Hmm. combat la boo xam ne nan ñaan yàlla ñu fekk ko jàmm. kii dina yaa ko tey dugg ci gaal yi. sant eh, sant sant yàlla rek sant yàlla la loolu. ndax eh, tey defaluñu yàlla. lu tax maame ko tey jii moom mu war a dem ci gaal ba ñu am kàttan ak man-man. di di seq relation waaw di ko jox avance boo xam ne tey. moo ko taxaw waaw moo ko tax taxaw. ndax eh, yàlla. li muy bind lépp ci bis ak waxtu la koy def. amaana li ñu wax rek combat dem nañu ko bëggoon. Hmm. ma ci sant nag maam ñaaw mi nga xamee ne mooy Ronaldinho waaw di nuyu Sëriñ Fall mi nga xamee ne tam moo yor ki yombalal nañ ma ko waaw ba pare yéene ma ko daal kon nag maa ngi ñaan yéene ji yàlla na ko suñu borom àggale ba li ci bëgg lépp ñu àggale ko daal waaw di wax kon gars kaay leen joxante loxo nag c'est sans sans problème da ngeen di jóg taxaw bu ngeen paree ngeen jël place joxante leen loxo kon teg leen ci loxo idaal yi bu dee bu dee nangu ngeen seen loxo yi arbitre rek la ñuy def ak ñoom si tool moom macha allah yee ñun dañuy arbitre.